aousubillahi min seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yu groupe communication Touba Monde bi TV ñi nga am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci màggalu Touba di yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar tey nag ñi ngi taxaw fii ànd ak suñu envoyé spécial di Serigne Mourtala Diouf ngeen ànd ak seen bopp taalibe Moustapha Kamal Diakhaté ak Serigne fii li nga xam ne moo di groupe communication bu Touba Monde bi TV mbooleem li nga xam ne moo wër jumaa ji dinañ fas yéene ànd yi nga xam ne mi ngi am ci kër Serigne tubaa gi ci jàkkaarloog jumaa ji ak mbooleem borom xam-xam yi nga ne war nañ fee teew ni ki suba yema fukki fan ak juróom-ñett ci bis bi ci débat yi nga xam ne dana fi faral di am ak fépp foo xam ne rek ñu nga xam ne moo di màggal gi rawatina fi nga xam ne moo di guy mbind fi nga xam ne moo di kër xalif bi eh, ci waa ànd fa ak waa hizbut ni ki noonu mbaaru Daaru Xudoos ànd fa ak waa hizbut Daaru Xudoos ñi ngi taxaw ak eh, kenn ci suñu envoyé spécial mu di Serigne Mourtala Diouf jógee ba fi nga xam ne moo di Turki kon Serigne bàyyi nga nuyoo ak ñi nga ne ñoo di mbokki téléspectateurs yi ñu daal di jublu ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf sëñ Moustapha Kamal di am mbégte saa su nekk xam ngeen ne di ànd ak yéen ci bépp yëngu boo xam ne dafa yitteel yoonu murit rawante ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di mandargaal jóge ci Ahmad Bamba xadusul file ci senegal ci dëkkam bii nga xamee ne moo di Touba waaye itam ca Mbàkke Kajoor di liggéey lu boromam xam ngeen ne seen groupe communication Touba Monde bi TV. du dañ mukk di yëngu waaye itam di jotal mboolem jullit fi mu nekk yëngu yi muy Sëriñ Touba di amal waaye yi muy amal itam ci yoonu ci yoonu murit tey ni mu ko waxee ñu ngi fi la ci Touba ngir waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar lépp loo xamee ne lu fi bàyyikoo la ci ay waxtaan ci ay daje yoo xam ne dañ koy yittewoo ci jullit ñi fu ñu ma nekk ci àdduna daañu ko jotal ba ngeen mën koo am ngeen ànd ak seen euh, télévision Touba Monde bi TV waaye itam ak rajo Xassida Online Touba Monde bi TV itam foo ma nekk ñu andi leen ay waxtaan yu am solo ay plateau ay débat lay doon waaye itam ay reportage yu am solo ak lu ngeen sori ci biir àdduna ci biir Sénégal mu mel ni ngi biir Touba ànd ci ak wala mi xam-xam itam loolu mooy suñu yéene te mooy fekkeen leen fi ngeen nekk ànd ak yéen fukki fan ak ñett ci weeru safar mu mel ni yéen a ngi biir Touba jërë ngeen jëf. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa mbokki julit yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ànd ak seen télévision bi di Touba Monde bi TV ni ngeen koo xamee depuis fan yëpp ñu ànd ak yéen fi nga xam ne moo di Touba Mbacké ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko fi amal ci màggalu Touba gi dëppoo ak fukki fan juróom-ñett ci weeru safar tey nag yamoo ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar ñu nekk fi nga xam ne moo di résidence Cheikhul Khadim di kër Serigne Touba Cheikhul Khadim bi xam ne moo jàkkaarloo ak jumaa ji Euh, fi ngeen jàkkaarloo ak ñun nag ñu ngi taxaw ak jëwrin Serigne Babacar Fall di kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi nga xam ne moom ngeen jàkkaarlool muy plan Jumaay Touba ci li nga xam ne noon la war a mel ci bu ko Serigne Sidi Muxtaar liggéeyee ni mu ko fas yéene liggéeyalee maam ju tedd ji ànd ko ak mbooleem taalibe Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñu defar ko ci plan bu am solo boo xam ne ni lépp loo xam ne ni rek maanaam war naa am ci jumaa lépp andi lañ ko ku ko gis nag xam ne nekkut liggéey bu yomb xam ne itam liggéey la boo xam ne nii ah, bari bari na lu mu laaj liggéey la it boo xam ne nii eh, képp ku ñëw ba tiim ko teg ko sa bët di nga xam ne eh, maanaam xel mu sell moo ko mën a xalaat te itam ci ci temps lañ koy defaree waaye nekkut loo xam ne nii rek maanaam lu ñuy defare ci diggante bu bu gàtt la kon ci loolu dañuy jébal kàddu gi Serigne Babacar Fall mu leeral ñu eh, moom bi nga xam ne bokk na ci ñenn ñi nga xam ne ñooy saytu li nga xam ne moo di liggéey bi ba jëmmal ko fii ci ndigalu Serigne Sidel Mokhtar mu leeral ñu liggéey boobu naka la doxee naka lañ ci dooree ba fi ñu agsi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ziara di leen sant bu wér wér nag ci barke màggal bi ah ñun de jóguñu si woon lenn lu dul liggéeyal sëñ bi liggéeyal sëñ Touba ah, ñun nag dañ di ay ndaw yoo xamante ni si ah, yoonu diine rek lañuy ñuy dox ah, ñu jiital si ki nga xamante ni mooy Abdoul Aziz Diop moom mooy suñu kilifa mooy suñu jëwriñ moom moo ko xalaat xalaatam la moo ko xalaat ay weer lu mat ñaar ñetti weer. bu buñ ko xalaatee après wooñu ñi nga xamante ni man ak ki nga xamante ni moo tudd Amanaar wooñu nañu kat lii laa bëgg damaa am yëg-yëg liggéeyal sëñ bi damaa bëggoon ngeen ñëw jàpp si man de ma ne ko ah wax dëgg fa yàlla nag liggéeyal sëñ bi moom dama ci ñëw jàpp mu nekk liggéey bu méttee métt nag liggéey nañ ko si fukki weer waaw ah, maanaam fukki weer presque ak benn dañ ko liggéey euh, mu nekk lu méttee métti métt ñu ngi ko liggéeyee Mboro chaque jour si la ñuy xëy di wàcc di si xalaat di ñëw si jumaa ji di xool di dem di ñibbi di ko xool di liggéey ba créer defar maquette bi ba macha allah daal ku ñëw daal ne mat na waaw ku ñëw daal ne mat na waaw daal noonu lañ ko liggéeyee Abdou Aziz bi nag moom mooy architecte bi moom moo ko xalaat moo créé lépp teg ko. jël ma comme euh, technicien man lumière yi laa def man maa jël lépp luy lumière def ko. mu jël amanaar ne ko dee ma génneel marbre yi fii laa ko soxla nanga ba ñu génne ko ba daal jumaa ji sot ñun ñett ñoo ko seet. ba defar jumaa ji indi ko fii nii tey Touba biñ ñëwee nag ñu ngi dal kër xalifa bi mu recevoir ñu dalal ñu si saalam xool ko ba mu mu kontaan lool am ci yëg-yëg lool mu ne yóbbu leen ma ko résidence yóbbu leen ma ko kër sëñ Touba moo ñu indi ko fii tey mbooloo mi yëpp ñoo ngi nii taxaw ku ñëw rek rafetlu ko ñëw seetaan ñëw photo daal di dem vraiment ñu di ñu am ci yëg-yëg lool ni kontaan nañ ni monde bi kontaan nañ Sénégal kontaan nañ Touba kontaan nañ ñëpp a ngi ñëw taxaw di ko seetaan vraiment ñun daal kontaan nañ ñun lool parce que yëg-yëg boobu lañ ci amoon. waaye lañ ko waxee ci sa biir wax gis nañ ne nekkutoon liggéey bu yomb comme nee nga ci juróom-ñetti weer daanaka ci ngeen ko ci ngeen ci ko liggéey euh, ban jafe-jafe moo ëpp bëloon ci doon am ndax euh, gis nañ ne maanaam ni ni ni maanaam ni ngeen ko indee dafa mucc ay euh, ñàkkul ay jafe-jafe yu ngeen doon jànkonteel yoo xam ne ni comme ni nga ko waxee da ngeen dem ba benn ngeen taxaw pause maanaam namaat xel yi xëy na ni nga ko waxee ñenn ñi jëlaat oto ñëwaat xool jumaa ji ci loo xam ne ni euh, boole woon nañ ko ci bokku ci wala loo xam ne nii xëy na xel yi àggu fi woon ngeen dem ba ci biir ngeen gis ne li mënu cee ñàkk dëgg la amoon na ay jafe-jafe lool lool lool lool seen bi lool sax parce que du liggéey bu yomb maanaam jumaa ji diis na lool lool lool dafa diis ki nga xamante ne surtout nag ki nga xamante mooy Abdou Aziz maanaam coono ji ci moom la njëkkee parce que moom da daan liggéey day liggéey moom usine lay liggéey bu xëyee dañ fay fekk continuer ak ñun ba fajar bu xëyaatee sept heures mu dem liggéey daanañ am nag problème mu problème mu euh, moyen maanaam maanaam dañ daan dem ba tàkk am problème xaalis pour continuer parce que dañ cee investir dañ cee def suñu xaalis am dañ doon jël suñu alal di ko si def kenn jàppale wuñu Abdou Aziz nag moo ci gën a sonn lu ma ne ko lii manqué ne rek mu dem rayante ji ko indi ko ñu daal di def ay paas ñëw fii du xool jumaa ji di delluwaat loolu ci jafe-jafe yooyu ak bañ ko paree bala ñoo génn mbooro jafe-jafe yu métti lañ fa am parce jours mujj takk der yi ñoo doon mujjee ñëw si suñu bunt yi di ñu garder pour ñu continuer liggéey bi jébbal ko sëñ bi murid yëpp ne affaire bi du dem parce que am na ñoo xam ne duñu màggali te buñu gisee maquette bi dem nañ Touba ci problème boobu leen nekkoon ba mujj gi ñu xëy fajar teel teel teel ñëpp jàppale ñu rek ñu aj affaire bi ñëw mais sinon kon du génn mbooro waaw. kon daal gis nga ne yokkute gi moom commencé naa feeñ laata liggéey bi di agsi ci kanamu sëriñ bi. bu baax baax a baax baax man parce que man làqatu naa sax yàlla miin tam xam na ko di jooy parce que musuma fooge ni euh, mbir mi dinañu yóbbu fii wallaahi la di damaa làqatu man di jooy parce que am na mbokk taale bi boo xamante ni dafa ñëwoon kooku mu gën a moo ma gën a indil ay ay ay lii dafa ñëw ñu ne ko génnal parce que dañuy liggéey mu jékki-jékki ne génn ma man ko lu tax génnu ma mu ne ma dew ma Tuubaa te damaa jàkkaarloo ak jumaa ji jumaa ji damay xool ba doyal man ko sëñ bi xoolal ba doyal mais bi mu demee damaa jooy parce que man yaakaaruma woon ni euh, ab fii daal vraiment talent bi moom ngi fi mën nañ liggéey dina liggéey leneen incha allah rabbi lu lu lu yéeme parce que boobu moo ngi fi mais xalaatuma woon nit ñi dañ ñu dañ ñu kiiwee noonu. ginnaaw bi nga xamee ne yaa ngi commencé di yëg avancement bi ci Mboro fi ngeen ko doon liggéeyee. bi nga ñëwee ba taxaw nag jàkkaarloo ak xalifa général di kulu murit mhm. teg jumaa ji ci kanamam mhm. ca suñu borom jàppale la nga bokkoon ci ñi ko ñi ko commencé ba fi mu yem mhm. bay mu mu jàkk say loxo ndax gis nañ ne ba ba démb xay na euh, éclairage bi amoon na ay problème technique yu desoon yoo xam ne ni xëy na euh, loolu moom fii la fii la fii fii fii fii la la dabee ci fi nga xam ne fi nga ko war a euh, exposé waaw léegi bi nga xamante ni jóge nañ Mboro départ ba ñëw Touba ba nga xamante ni présenté nañu xalifa bi ma koy sant yàlla parce que it euh, euh, yaakaar naa ne liggéey bi tey moo tax ba ma jàkkaarloog sëñ bi joxante ak moom loxo loolu yaakaaruma ko woon sama àdduna maanaam lu lu ma mës a fooge mais liggéey bi moo ma yóbbu ba si sëñ bi ma jox ko loxo ak loxo man loolu yëg-yëg boobu rek maanaam man man pour man sama liggéey naa maanaam fay nañ ma man wàcc naa parce que jox loxo bi sëñ bi rek loolu sawaay euh, liggéey rek moo la ko may bi si des mooy am nañ leen tuuti jafe-jafe indi ko fii ñu dugal ñu salle bi ñu indiwaat ko fii parce que day jël temps débranché bi ak dindi bi ak monté bi mm. parce que électricité bu nekk si biir rek dafa bari dafa bari trop maanaam bu dul loolu nag wax dëgg fa yàlla moom moom amuñu amaatuñu benn jafe-jafe wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. ci wàllu visiteurs yi ba tey gis nañ ne euh, ña euh, diggante barki démb ak léegi ñu bari ñu ngi gis euh, image yi ci ci ci ci net bi. Mhm. mais taxutoon ñu xam dëgg-dëgg fan la affaire bi exposé wu. Mhm. ba bari na ñoo xam ñu ngi ko doon gis ci net bi mu yéem leen trop. Mhm. ñu amoon yéen gis ko. ndax boobaa léegi tamit am na ay information yu jàll pour mën a xamal nit ñi liñ doon jeex mi ngi résidence Xaadim Rasool jàkkaarloo ak ñoom ci kanamu jumaa ji. dëgg la waaw c'est que indi mooy euh, premier jour bi ñu ñëwee ci saalu xalifa bi dañ ko fa monté fa lañ fanaan léegi ñu jot a ñëw euh, présenté fa am na ay. Euh, doomu xalifa bi ñëw na fa am na ay sëriñ su bëri ñu ñëw bi ñu ñëwee dañu taxaw di waxtaan ak ñun ñoom ñu ñuy jël ay ak après ñoom ñoo ko jàllale ñun yëguñu voilà moo ngi noonu ñun yëguñu ko sax après ñun dañuy woo téléphone dañu seen euh, maquette bi ñu ngi koy génnee ñoo ngi koy seetaan YouTube ñu naan ñoo ngi koy seetaan internet daal daal foofu daal lañ ko commencé dégg ñu xam ne nag affaire bi dem na mais si lañ déplacé wu ñu waat fii nii xam naa lu si bëri nag loolu moo réeral moo réeral réeral ñi nga xamante ni yëgul nii ñoo ngi fii si résidence mais actuellement ñoo ngi fii nii si résidence bi kër euh, euh, nga xam ñu ngi taxaw si biti jàkkaarloog image yi yow euh, maanaam loo ci gis ak loo ci yëg. waaw parce que dégg dégg am na yoo xamante ni dañuy dem ci porte bi ñaan a ñaan ba dugg ñëw def visite bi laajte am yéene lool ñaan gi nag bëri na dañuy ñaanal ñaanal ñaan. ba wax dëgg fa yàlla sama yaram day daw mm. maanaam man daal xaw ma lu may wax mais daal affaire bi daal yëkkër yëg yóbbu nañu foo xamante ne kenn xamul mbooloo mi ñoo ngi nii ci bunt bi fu nekk nii dañuy taxaw ñu dem ñeneen ñëw photo jël lépp image bi ngir lan bëgg sëñ Touba vraiment yéemu ci jumaa ji te ay sénégalais ñun sénégalais ñoo ko liggéey am na ñoom tamit dañuy ñëw sax naan est du tubaab yi ñoo ko indi kii mais nee na ñun ñoo ko liggéey si suñu xel waaw ñoo liggéey ak suñu xel surtout nag si kaw turu Abdoul Aziz Abdoul Aziz Diop waaw man lépp moom laa ko jox lépp moom la man damaa wax nii rek ndax li mu fi nekkul mais lépp Abdou Aziz la waaw maa ngi sant nag di ko gërëm. Ah, am ngeen yeneen procès yoo xam ne mi ngi jëm ci biir dëkk bi ci yeneen yoo xam ne itam euh, ay yuñ taxawal la nga xam ne war ngeen cee mën a liggéey dool yi nit ñi li nga xam ne moo di motivation. waaw donc loolu tamit euh, dinaa si kontaan te dinaa si sawar a waxtaan ak yow pour dëgg-dëgg nit ñi xoo xam yéen yéene moo ñu tax a indi maquette bi fii maquette bi façon nit ku nekk woo nañu te bu nekk. pour ñu jaay ko maquette bi ñu ne ko jaay ñu ko kii dafa am borom dañ ko yóbbu si loxo xalifa bi man demee teg ko si loxo xalifa bi tamit ñuy ñaan di ko ñaan mu ñaanal ñu mbokki taalibe yëpp buñ ko gisee nañ xam ne ñii nii am nañ pas parce que mën nañ leneen lu dul lii ñooñu nag la ñuy yaakaar ñoom ñu dimbali ñu ñu ànd ak ñoom liggéey ak ñoom te mën nañ liggéey ak ku ne si àdduna bi ak loo yaakaar boo ko andee ñun incha allahu rabi mën nañ ko def maquette liggéey la ko si ni ñu ko bëggee moo tax ñu jàllale ko ko ñëpp gis ko ngeen jàllaleel ñu jàppale ñu ba ñun liggéey ak ñi nga xamante ni dañuy nekk si ay wàllu maquette ak ay ak ay waaye nekk si wàllu maquette ak yooyu daal wax dëgg. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ni ngeen ñu uh, doon toppee ba léegi rek ñi ngi taxaw ci liggéey bu yéeme bi nga xam ne mi ngi jógee ci dëkk bi di Mboro taxaw ak ki nga xam ne moo di Serigne Babacar Fall ak Serigne Amana di kenn di kenn ci ki nga xam ne mooy ñett ñi seq liggéey bi ñu ànd ko ak seen jëwriñ Serigne Abdou Assis Diop mm-hmm. waaye mu am lañu doon leeral loo xam ne dafa daggoon si biir jot a mooy bi ngeen nekkee mbooro situation yi ngeen doon dund ak diggante seen diggante ak taalibe yi ci bi nga xamee ne dem nañ ba teg liggéey bi seen bët ñoom itam ñëw ba am fu mu leen yóbbu ba am fu mu àgg ak ñoom seen diggante ak ñoom loolu tamit bëgg nañ ci ay leeral tuuti sëñ Babacar. Mhm. mooy li may wax rek ñun bi ñuy liggéey tolloon nañ ba yenn jamono joo xamante ni maanaam bi mu desee ay quatre ou cinq jours pour ñu war ko mën a indi Touba fekk. daanaka xalifa beeg ñun ñëpp ñoom ñëpp ñun la ñuy xaar mais bi nga xamante ni waa Mboro yëg nañ ko saa yu ñu xëyee ful bi ñuy gis ñuy ñëw foofu mardi itaali ñun dañoo mujjee sax arrêté liggéey bi ñu yónnee ñu ay takk der ñuy taxaw ci bunt bi bu ñu taxawee bu ñu liggéeyee yenn saa takk der bi sax nekk kaa leen ñu ubbi fenêtre bi ñu bàyyi leen par benn benn ñuy ñëw di ziar bu ñëwee ñu ubbi leen fenêtre bi ñu ziar ziar bu ñu tegee ay kii ñu tëjaat fenêtre bi ñu dem mais surtout nag ci ñi nga xamante nii doon nañu liggéeyal mooy comme ni ko Amana waxee sëñ Amana moo ko doon wax dama ko fàtte woon gis nga gris yi bi ñu koy teg wallaahi la si ay ay ay ay chrétiens yu nekk foofu noonu ñoo may dégg xam naa dañ ma dégg dañ ci doon ñëw di jàpp di liggéey bu ñu xëyee dem yeneen booy ñëw maanaam ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi ku si nekk da doon ñëw di liggéey ñi doon joxe si addiya yi maanaam catholique yi nekk foofu yëpp dañuy ñëw xool jumaa ji di sànni seeni i addiya maanaam di sànni seen i addiya te ci gën a yéeme mooy ñun ñett ñu ko liggéey suñu njiit Abdou Aziz Tijaan la waa kër maam Maodo la ñoo ngi ko tijjee Cheikh Ahmad Tijaan lañ ko tijjee man waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu laa man xaadar laa kii sunu rakk la yàlla def na moom murit la yàlla boole ñu ñu ba ñu liggéey liggéey bii nii te ñun yéex naa xam ni sax affaire religion affaire tarixa yi man yéex naa ko xam ci fin chantier bi laa xamee ni si laa ko door a xel waaw nga ci door a bàyyi xel laa ci door a xam naa kon foofu la ñuy wéyalee kàddu gi ci sëñ Amana maanaam muy muy muy lu yéeme lu lu lu baatine kon maanaam euh, yoonu murit wanante na boppam ci euh, lii Serigne Sidi Mokhtar bëggoon ci bi nga xamee ne agsi na ci liggéey bi ne dafa bëgg Sénégal gépp doon benn ñu gis ne kon dem na ba yemul ci diggante tarixa yi ci liggéey bi ndax ni ko waxee ñetti tarixa ñoo ko seex muy Tijaan xaadir ak murit te daanaka boo xoolee ci cosaan maanaam eh, eh, wirdu yooyu yëpp sëriñ bi jaar na ci maanaam laata muy wer eh, ber wirdu boppam jaar na ci wirdu tijaan jaar ci wirdu xaadir kon dafa mel ne maanaam ba léegi liggéey bi benn la waaye li ci gën a doy waar mooy yeneen suñ suñ yeneen mbokk yi nga xam ne dañuy dund ci yeneen diine ca bokk ñoom réew mi ni nga ko waxee ci giri yi nga xam ne lu ci bari ñoom dañ doon ñëw di ci barkeelu ak itam nangu gu liggéey bi nangu ci seen kanam avant ngeen di jóg ndax fa mu nekk ca Mboro lañ ñëw di ko rang ca ak seegul Touba kon maanaam jëf ju nangu la jëf ju jëf ju wuyu borom la segam fa mu nekk ca Mboro tamit fa lañ fa lañ ko fekk di fa joxee addiya kon loolu li muy wane rek mooy jëf ju nangu kon yow loolu ban jàngat nga ci am yow mi nga xam ne bokk nga ci biir liggéey bi. déjà di sant yàlla di sant yàlla bañ ma boolee liggéey bi di sant tamit euh, Abdou Aziz moom mi initié projet bi ñoo dugal ma ci en tant que artiste. dugal ma ci liggéey bi jox ma le plein pouvoir lépp lu ma mën da xam ne ne mu ngi ci jumaa ji ma war ko cee mën a appliqué ak côté peinture daf ma ko daf ma cee xajal bu baax parce que maa ngi ci koñ bi yàgg nañoo moom mënoon na dem uti keneen ñëw dugal ko ci yaa de mais reconnaître na la ma mën ñëw boole ma ci kooku dama koy sante parce que tey bu loolu moom man aw ma sañ-sañ taxaw fii tey di wax waaw buñ jàllee ci loolu maanaam tey euh, ci liggéey jumaa ji tolloon nañ ay jamono am na délai bi xatoon na te giri yi dafa bari benn par benn lañ ko doon tegal suñu mbokk yu bari suñu xarit ñi àndoon matin midi soir mbokk euh, yeneen euh, tari diine yi euh, ñoom chrétiens yi ak ñoom seen ñoom ñëpp dañoo ñëw di ci jàpp di teg man dama toog mel ne instant sama yaram daw ma ma daal kontaan daal parce que ba ma gisee ñëpp ñu sekk liggéey bi di kii ma ne ah xaadim rasul bëri na ay taalibe te yaatu na trop. waaw yaatu na trop Sénégal yëpp ay taalibe sax sëñ xaadim rasul. dëgg la la yàlla kontaan nañ trop kontaan nañ trop te lépp suñu yéene gi yëpp ñëw na parce que tamit liggéey liggéey bu tool nii ba pare nga ñëw nit yi kontaan te parce que kon réussir nga. nañ la ci waroon nekk mu ngi ci waaw te kontaan nañ trop dëgg fa yàlla. Euh, laneen looy doole rek mbokk yi nga xam ñu ngi fi ñëw di ko di ko visité ci. Eh, yow sa ambition yi bopp sa wàllu liggéey ëllëg ak lépp li nga xam ne ni yow maanaam sa métier la muy muy loo man eh, te it eh, xëy na fii la feeñee kon su boobaa yow lan ngay wax mbokk yi nga xam ne dañuy soxla liggéey yu jëm nii ca ngeen liggéey ko ci biir Sénégal di ay sénégalais yoo xam ne nii ba pare di ay ndaw nag boole ci. bon man fi may tàmbalee mooy barki démb bañ ñëwee tak ñu njëkk dugg ci saal gis nañ ñu toog mais faalewuñu parce que nee nañ ñi liggéey li ay ay nasaraan lañ barki démb ci salle bi la nekkoon saalu réception sëñ ku ñëw taxaw ay nasaraan ay nasaraan ma kontaan parce que lan xam naa ne man lii maa ko liggéey mhm. maak sama naataangoo yi yaa ngi dégg mhm. tey ñëpp gis ko yaakaar ne ay nasaraan na ko liggéey dama ciy kontaan dama ciy fier parce que kon man aj naa sama level mhm. waaw su ma liggéeyul su liggéeyul woon nit yi du ñu kontaan ba wékk ko ñeneen ñaa xam ne ñooñu ëpp xam-xam dañ koy nangu ñooñu ëpp xam-xam mais tey wane nañ ne bu dul foofu tamit fii mën nañ fay defar lu mel nii. yaa ngi dégg di lancer benn message parce que lii Sénégal soxla nañ ko kii waroon na jiitu jumaa ji balaa ñoo teg di teg benn pierre pour liggéey ko. yaa ngi parce que appui didactique <laughs> ah, la. waaw comme que tey moo ngi fi. te jumaa ji pareegul. Mm-hmm. kii mën nañ cee sukkandiku pour liggéey li des si jumaa ji parce que ñun génnewuñu contexte jumaa ji lépp li nga xam ne moo war a nekk moom lañ liggéey waaw. jërëjëf sëriñ Amana jërëjëf sëriñ Ibrahima kon mbokk yi liggéey baa ngoog ni ngeen koy jàkkaarloo nii mu sell lool ci rafet lool. képp koo gisit li mu wax rek moom ngay jàpp ne lii ay nasaraana ko liggéeyee ndax it xëy na xam-xam bi foofa foofa lañ ko yaakaaree eh, ndax it eh, lépp lu ñuy liir wala ñu koy gëstu xëy na ci ñoom lay lay jógee matériel bi waaye Euh, ba tey maanaam euh, xel moom suñu borom da koo dénk ñëpp te lii ku ko gis xam ne maanaam dëgg la ndimbalu suñu borom a ngi ci waaye nag gëm sa bopp itam moo moo mooy li nga xam ne moo ko lal